ngeen jot ngeen mën a jot moo leen vidéo boo la Sëriñ Mbacke bu ñu la doon laaj tey ci koo xam ne fréquenté na xel ko mu xam environnement bi dund fa lu yàgg. lan nga ñuy wax tey ci diggante sëriñ Saliou Mbacke ak Daara. alhamdulilah wa kafa wa salaamu ala ibaadi lisina stafa mbokk yi ñu leen nuyu baax di leen siyaar yéen ñi xam ne ngi ñuy teewlu di leen ndokkeel bu baax si bis bu tedd bi nga xam ne bis la boo xam ne fu nit ku baax nekk te am yëg-yëg sa xel dana si dem muy fukki fan ak ñeent si weeru sul qiada di bis boo xam ne si la jàmbaari jàmbaar ya feeñoon jantub jamono Maolana Cheikh Saliou Mbacké duñ dañ jamono bu bis bi dellusee ci Sénégal ak bitim réew mbokk yi di ko fàttaliku ci fàttaliku goo xam ni gu dëppoog nam bëggee woon la mooy di ko fàttaliku koo xam ne du dara luy wuute ak sunna lu ci am te mooy di ci jàng alquran di si jàng xasida di ci def ay zikrullah di ko yéene yool bi bu ko defee borom bi tabaaraka wa taala di ko ko àggale di ko sotti itam ci mboolem salafu saalih ñi koy fàttaliku di ko waxtaan itam eh, borom bi di leen teral ñu di ci fàttaliku nag loo xam dafa jëm ci alquran ak ni xam ni Euh, ci noonu la tabaxe woon jëmmum ju sell ja sëriñ Saaliw radiyallaahu anhu xool ni mu tabaxe woon jëmmum ju sella ja mooy aaya boobu borom bi tabaaraka wa taala di wax ni qul haadihi sabili ad'u ila llahi basira ana wa man ittaba'an li yonent bi alayhi salaatu di wax ni man dama tàggat sama bopp ci mbaaxuk suñu borom tabaaraka wa taala tegu ci siraatal mustaqim di gindee di jubale si la tàggat sama bopp waaye képp koo xam ne itam danga ànd ak wante nangul ma si yoon woowu lañ lay tàggat kon moom ci yoon woowu yonent bi alayhi salaatu tàggatoon boppam tàggat si saxaaba yi eh, si la nekkoon waaye itam tàggat si mboolem taaliba yi nga xam ni itam àndoon nañu moom ak mbooleem jullit yi nga xam ni nangu lañ ko bu ñu waxee Serigne Saliou ak daara nag sa xel lay dem si 1934 bi xam ne wax na ne daara ji njëkk a sos ci histoire tañ mën koo jàpp ci dat boobu la muy got ginnaaw bi ay daara yu bari sosisi man mën ngaa wax xaban mën ngaa wax njurul man ngaa wax ndooka mën ngaa wax njàppndal man ngaa wax lagan mën ngaa wax ngéejaan mën ngaa wax daaru salaam ñibingel mën ngaa wax ñaaru man ngaa wax ngaa ngaabu Tuubaa njaareem waaye man ngaa wax janatul mahwa waaye ba ci gën a yitteele nag nga xam ne boo nee Serigne Saliou sa moom lay dem mooy xelkom gi nga xam ni mi ngi ko sos si 1993 euh, ci niñ ko niñ ko jàppee kon daare jooju nga xam ne moom mooy xel koom diggante boobu nag ab liggéey bu rëy rëy am na fi ci dong yi ci liñ mën a jàpp ak loo xam ne jàppuñu ko waaye bu dee ci ñaari date yooyu ñu la wax muy 1934 ba 1993 foofu dañuy wax ni li fi jàng ci ay gone ci eh, alquran bind fi ay kaamil ci diggante ci dat boobu rek ci liñ mën a jàpp mooy kaamil yoo xam sotti na ban jébbale ko day àgg ci ñaari junni kaamil ak ñaar téeméer ak juróom-ñett deux mille deux cent quatre vingt neuf ci ay kaamil yoo xam ne bind nañu ko ci loxoom yewénal ko euh, jébbale ko ak yoo xam ni nag xañ na jiitu woon na date yooyu ñu la wax ndax li ma wax maa ngi ko takk ci 1934 euh, ba 1993 xam nga ne loolu ab liggéey la te daara ju si nekk itam dana am fukki jàngalekat ak ñaar yoo xam ne dañuy boole di jàng alquran waaye di jàng xasida waaye di liggéey nga xam ne amul benn waxtu woo xam ne euh, danañ ko noppalu mel ni la june imam Junaydi rahimahullah waxoon ni nitu yàlla que nii biñ ko laajee luy aarif bi la dafa wax ni law lawnul ma lawnu yi mooy ndox moom ndab lu mu nekk nu mel rek noonu lay mel bi na amul waxtu wu ñuy féex boo noppee ci alquran ji yaa ngi ci tool yi boo noppee ci tool yi yaa ngi ci xaside yi boo jógee ci xaside yi yaa ngi ci tàggat gone yi boo jógee ci tàggat gone yi yaa ngi bale boo jógee ci zikkar yaa ngi dalal ay gan boo jógee ci dalal ay gan yaa ngi xeetli ku loof dundam gépp ci loolu la ko tabax nekkoon nag kaa inun baa in nga xam ne day nekk ak nit ñi ci zahir ñu di ko gis waaye nag dafa jokkaloo ak borom bi li wusul boo xam ne du dagg benn yoon laylan wa naharan kon jëmu jooju bu ñu koy roy di ko def modèle dafay jaadu jamono bu ne ñu di ko fàttaliku ngir jikkoom yooyu ak jëfam yu rëy yooyu Euh, ñu di ko bàyyi xel bu su ma la waxee ne la xel comme lu tolloo fukki daara ak juróom nekkoon nañ ba ci ci jamonoom te itam daara ju si nekk dañ lay wax dañ koy tuddee tur woo xam ne boo ñëwee Touba da nga ko fekk muy ab quartier xam da nga gis daaru Tanzil di dégg daarul Manaan di am daaru Salaam di am Xusnul Maab noonu nga koy daaru Alimul Xabiir noonu nga koy jeexe ba umul Qura bu fukki daara yi ak juróom euh, mat. mu nekkoon nag loo xam ne itam lu yaatu la ndax waxoon nañ ne àgg na ci cinquante mille hectares. Mm-hmm. ma misaaxa bi yaatuwaay bi. limu dong yi nga xam ne yoroon nañ ci biir xel xelkom ak li xel xelkom itam motoon nañ cinquante mille ci ay per ci ay ci ab lim. Mm-hmm. xam nga loolu euh, engagement la loolu boo ko waxee da ngeen ñii lu ñu leen di dundalee. te daa mel daana wax sax ni maanaam am nit moo gën a jafe ab dund. Mm-hmm. xam nga loolu mooy wóolu yàlla. borom bi tabaaraka wa taala ndax moom daa bokkoon si eh, li nga xam ne dafay tàggatoon boppam gëmloo ko nit ñi ni ab dund moom ci borom bi tabaaraka wa taala moo ko warloo yow liñ la digal mooy nga jàmm ko ndax yàlla eh, damay faral di wax ni amul bëgg-bëgg wala xemim def ngay def li nga war a def mu di la xañ lim la war a xañ ndax inna la nudihu ajral muhsinin yàlla heure boo boolee plus ak moyen boo amee lampe booy taal muy takk doomu aadama kay la yàlla dogal mu am feebar boo xam da ngay am yi nga war am yëpp mu di la gàllankoor waaye moom li jëm si wàllu ak dund mu ci sax bàyyi xel moom daal nit ñi nañ ñëw te ma ku toll si war a mën a dékku coono ngir génn dëgër gi lompoñ gi daal la daay yërëmee waaye nit ki moom bu xësee matal sarti rek bu ñëwee euh, ñu yor ko fa kon bu la waxee ne la àggoon nañ ci cinquante mille ci ay donga kon di nga wax ne ñooñu ñoom lan lañ daa dundee ñu wax ne la seen daana doon deux mille cinq cent kilogrammes ci maanaam ci loo xam ne ak ceeb bu ñuy dundalee yow mi yan loolu boo ko nattee euh, da danga xam ne loolu ab liggéey la boo xam ne kii ku ko doon roy am nga royukaay ku bëgg koo jàpp am nga ab jàppukaay te itam dañuy dañuy koy soxla soxla ku mel ni moom rawatina jamono jii waaye yitteem dëgg daal ci ak gàttal lañ xam ne moo doon doonoon tabax doomu aadama amuloon yitte ci ci beneen mbir ndax doomu aadama boo ko tabaxee tabax nga am nga lépp waaye doomu aadama boo ko tabaxul dara mun a sotti daanoo tàggat nit ñi suñu bañ a soppi seenu melokaan mel ni ñu war a mel ndax dégg dégg alxuraan xam ni nit ki heure buñ heure buñ ko tàggalee ak lim gëm rek dootul mën a tabax dara moo tax daan na la gëmloo sa bopp nga nangu ne ab jàmm nga waaye nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey yàlla nañu ko borom bi tabaaraka wa taala fayal